sonn nanu tàyyi nanu dee nanu ndax ndox mii ku dawul sa yaram sa yaram dootul dawat ndax ñun ñii fi dëkk sunu doom yi wératunu sunu ñu ngi dëkk si feebar yow da yow boo nee corona bi yaakaar naa yow mi nga yow yaay sunu mir, nga nyata ñaata at si at serendi, ji sunu jëkkëri bu ndee dem jàkka ja mënatuñu dem jàkka ja danoo daanu fajar jamatunu matunu defatunu dara ndax ndox mi waye amna yakar ne lu Golbert jagn dan wax dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi ak gan waaw ah ci ah, si bi defar dëkk bi ak gan Mansour fay ndar la dëkk Mansour jalmer. ndar la dëkk tabarkallah ta ba ngay jël mer wa tabla wala dañu jiar ni dañ lay fal man maa ngi nii si man ñi la doon jiaral man sila bokko kuma wo damay wax tabarkalla macha allah kon am naa yaakaar ku xool ndox mi corona bi tabarkalla macha allah kon nag ñoo ngi ñaan Macky Sall mu waxantee ñi nga xamante ne ñoom la teg ci nguur gi muy maire bi nga xamante ne mooy Mansour fay mu ñëwaat dellu si waat xool tabla waalo dimbalin si ndox mi tunda waak yow lii wër Pikine yëpp ay ndox kese la mënatul wér kenn mënatul wér waa Pikine yëpp jooy nanu sonn nañ si ndox mi kon nag Mansour Faye ngir yàlla li laay war a suuli ñawal nga taxaw nu nga dembale nu si ndox mi nga jàppale nu si ndox mi ñun ñi dañ daan dem jàkka ja dematuñu jàkka ja xama kañ lañu gëj dem jàkka ja ndox mi jooytu nañ ko tey jooytu nañ ko guddi jooytu nañ ko bëccëg ñoom autorité yi jiite si dëkk bi xam nañ li xew ci dëkk bi lii umpu leen ñoom buñ fi nu fii ñu dëkk ñun buñ ñoom buñ fi dëkkoon réglé nañ situation bi kon nag ñun dañu faalewul dañu dundul loolu mooy suñu problème Nous fi nekk amuluñu dëkk bi toujours nous ñu ngi si guddeeg bëccëg nous nga ni 12 mois sur 12 ngay dund avons ndox nawet ngay nous am ka Nous avons bi ngay ëpp problème dafa ñaaw nan nous avons dimbale Nous nu nu lijjantee suñu ONAS avons ñëw assister régler situation yi mais bu nawet mois la ñuy pare si ñu ngi ni sonal nous guddi problème bi bari na ci dëkk bi bari na ci dëkk bi réglé wu politiciens yi nag amaluñu ndar njëriñ amaluñu ndar njëriñ ñi fi nekk ñëpp amaluñu ndar njëriñ. Pikine moo fi gën a dellu ginnaaw ndox mi depuis mois de mars ba léegi ñu ngi tegg pova yi ni dañuy dugal ay canal onacen fii léegi ba ñu gisee bi ñu gisee journalistes yi ñëw fi lañ commencé ñëw di jaabante sol en t-shirt ak seen ay cap mais liggéeyuñ fi dara du dara luñ fi liggéey muy onaso du keneen ak keneen mbalit maa ngi fii mbalit mi ngi fiy jalaañoo Mansour Faye mi ngi jël ay poubelle di ko joxe mais boo joxee ay poubelle ñu def suñu te amuñu fu ñu ko def ban njëriñ la am ban njëriñ la yaa ngi ci kër gi fees dell ak mbalit mais fan lañ koy def oto yi mënuñu jaar biir Pikine mënuñu jaar tëblaal taxi boo fi jël da yor malade man bërki dama yor malade mu war a dama jël benn taximan mais pour mu àgg sama kër c'est tout un problème dañu war a xool li ñuy def ñun Saint-Louisien sa rawatina ñun Pikine fii nax ñu jox ñu xaalis ñu voté ñu jël boole laak wala boole laak mu nek ak yow ben une semaine bo paré nga votel ko bob nga koy gëj a jot téléphone bob ngay gëj a am ndox boy duy ndox sax da ngay am problème Saint-Louisien yi dama len koy ñaan nañuy yeewu politiciens yi amu lu ñu ñëriñ 10000 centimes lan nag pour tabla la c'est pour toute Saint-Louis toute Saint-Louis